tudd fay. <laughs> maa ngi coché e rek quoi. <laughs> donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di di leen di leen ñaanal yal na leen yàlla defal jàmm. amiin waay e, loolu dafa am e, au niveau du Sénégal. comme ni nga ko waxee dafa dafa dafa nekk lu am dañuy am suñu mbokk yoo xam dañuy liggéey te ni nga ko waxee dañuy dañuy danoo danoo nekk nag ay ñu am contrat contrat à durée indéterminée wala contrat à durée déterminée wala ñu am contrat de prestation Euh, mais dañuy cotiser ce qu'on appelle caisse de sécurité sociale. très bien ni yow di man di keneen ñu bare bu ñu xoolee tey seen bulletin di nga fekk ñu am ci caisse de sécurité sociale. donc mm-hmm. ñooñu dañuy liggéey ils sont assurés. Mm-hmm. léegi comme ils sont assurés. bu ñu demee ba ndogal dal leen comme li ngay wax rek mooy accident de travail. Mm-hmm. généralement l'employeur voire même waa caisse de sécurité sociale ñu leen doon ñu leen assuré. dañ leen di jël daal di leen di teg de côté beddi leen. nax saxal leen boole leen si ndogalu yàlla la yàlla moo ko dogal ba généralement dañ koy jaaree euh, fàtte leen ñi faatu. donc loolu moo tax ñun suñu association ñu créé ko bu yàgg depuis 1973 nag. yàgg na mm. suñu paa yi ñoo ko créé woon. Mm-hmm. Euh, nekk si di si liggéey liggéey bu am solo. sunu président Tidiane Sow suñu secretaire général euh, monsieur monsieur Faye Mamadou ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk si di si liggéey. ba yàlla def aussi ñun. ndogal tamit ñu dem ba bokk si. Mhm. yaakaar naa ne jommul kenn. jommul kenn de. nit que képp koo xamante ni yaa ngi xëy di liggéey. Mhm. yaa oustaz yaakaar naa ni euh, ndog ma na dal fu ne. Mhm. donc euh, bu la ndogal dalee nag euh, yàlla def nga nekk ku ànd ak ngëm da ngay gëm yàlla. nga xam ne yàlla moo la ko teg. bon comme yàlla teg na la ndagul ndogal da nga koy nangu après nga essayé xool nan nga koy dundee. dundin la daal en quelque Mm-hmm. léegi nag euh, lu si am mooy euh, dafa am nag euh, loo xamante ni sunu ñu fi ñu ñu ñu assuré ak ñu ñu jiite. waaw dañ koy fàtte. naka lañ koy fàtte. nan naka lañ koy fàttee mooy comme li nga wax sànq boo accidenté tuuti. waaw li nga mën mënatu ko. dëgg la ci entreprise bi. Mm-hmm. comme ngay liggéey nekk si plateau tele wala dara quelque chose comme ça yàlla def sa benn bët am problème. Mhm. am moo tax taxaw léegi si télé bi nekk di liggéey. léegi dañ lay am fu lay def. Mhm. am na ñoo xamante ni dañ lay am fu lay def. Mhm. mooy surtout suñu mbokk mën naa ko waxee noonu waa jullit sax suñu mbokk euh, suñu mbokk sénégalais yi. ñoom am nañ si yërmande tuuti. waaw mais tubaab bi fi ne euh, ñoom dafa am ñoo xamante ne ba léegi dañoo jàpp ni esclavage moo fi nekk ba léegi. ah bon ah parce que il suffit que comme li kiy wax sànq nga def benn accident rek ba lay naxtan deux trois kii un an deux ans. Hmm. parfois bu direction bi changé rek ñeneen dañuy ñëw daal lay teg fële. bedd la teg la fële te dafa am sunu cas ñu bare ñu mel noonu. Hmm. dama ji dama ji dama dama ni sax cas dama ni ko totalement sax ñun ñëpp loolu la ñuy dund. da di bokk di liggéey ak nasaraan si. accident de travail dal leen entreprise sénégalaise yi ci say kàddu ne nga ñoom sax am nañ yërmande diggante doomu aadama ak doomu aadama tuuti euh, dinañ leen delloo tuuti seen ak ak ah, ah, yelleef ak yooyu waaye nag accident de travail bu la dalee ci bërëb liggéeykaay ba non moom laa lay wax la dalee ci tubaab bi généralement lu si ëpp boo ko defee tuuti rek après dañ lay teg fële lu si bare parce que ñoom dañuy jàpp ni euh, lu ñuy wax rek Euh, nga baal si moo bi. Mhm. def na euh, bon nu ma ko wax si kii parce que tel la nekk bëgguma ko wax parce que xale yi ñu ngi ñu ngi seetaan. Mhm. Euh, mais dañ lay wax ay moo yoo xamante ni généralement dañ lay démoraliser sape sa sa moxal def la yoo xamante ni après dootoo bëgg te dara si àddina. dañ lay maltraité. dañuy dañuy te parce que mhm. quatre-vingt-dix pour cent la. Mm. man si association bi laa bokk yàgg naa si. ñu jox ma chargé de revendication lu ma am si cas dafa bare. ñi ngi Thiès ICS ñu bare ñu bare bare ñu ngi Thiès ñi ñu ngi feneen yeneen société ñu bare te dinaa wax tuuti si accident travail Sénégal ni mu ko jàppee euh, damay nettali sama bos ba ma defee sama accident dama ko def sept heures du matin ba ma ko defee Eh, tey damay xaw a dëgg tuuti parce que may wax sama accident généralement damay xaw a tàng tuuti quoi. Mhm. parce que dafa may xaw a kii tuuti. léegi euh, ba ma ko defee ñu yóbbu ma ambulance bi jël ma weyn weyn yóbbu ma hôpital. Mhm. maa ngi affaire mi ngi ñëw nii sama nopp bu ma duggee salle d'urgence euh, à l'hôpital principal. Mhm. Euh, bon j'étais jeune. je venais de me marier. Ah. nekk sama lune de miel. et tout ça ma femme était enceinte de neuf mois. et puis c'était mon premier enfant. Mhm. donc ñu ngi xaar mi accouché ak yooyu. mais xam nga j'étais dans les délires affaire yi métti woon na yooyu. am benn waay bu ñëw fekk ma si salle bi maa ngi yuuxu mun ma eh saa waay da nga accidenté. ma ne ko waaw def foo demoon ma ko doon liggéey mun da nga doon liggéey ba accidenté. ma ne ko waaw mun ma sawaay sa affaire baax na. Mhm. Mm-hmm. donc nit mm-hmm. ku saas. Mm-hmm. ma ni may kii lu muy wax nii man joo yuuxatuma. léegi waa moom moo parce que bu ma mu jege ba ma ŋànd ko. rek minima lan la main droite wala main gauche man ko non sama main droite la minima boo yow tekki nga. ci naka. voilà c'est la bonne question. léegi Sénégal dafa am ñoo xamante ni bu la gisee nga accidenté rek dañ leen waa affaire am baax na tekki na. ci naka te eh, wax nga ci sa wax nga ne ci yoonu liggéeykaay ba la la dalee wala ci bërëbu liggéeykaay ba la la dalee te ci lan nga doon yëngu ci jamono accident de travail bu fekkee da nga jóge sa kër mhm. nga sangu ba set dem di liggéey ci yoon bi sax bu yoon bi bu la dalee accident travail la bu la dalee ngay liggéey accident travail la mhm. booy ñibbi bu la dalee accident travail la euh, man duma ko du sa wax grand mu ne daan liggéey Euh, ma nekk yëngu si ay machine mhm. machine yi dangereuse meunier laa de formation mhm. def ko nag jàngi ko dem ko dem naa ba Europe dem naa ba Suisse jàng ko mhm. donc loolu danaa si liggéey mais loolu yëpp ba mu ko defee dafa nekk machine je suis pas le seul sax bu mu mos dal foofu am na keneen ku mos dal ak ñeneen parce que day day arrivé mais ba mu amee société bi muy grand moulin xam na ni am na part de responsabilité ci accident bi du man rek y a beaucoup de sociétés dañuy xam ni am na part de responsabilité ci accident bi mhm. parce que dañu waroon tëj fii tëjuñu ko machine bi dañ ko waroon def di defuñu ko et tout ça léegi de ce fait ils sont obligés ñoom à leur niveau ñu utal la fa nga nekk pour après euh, defal la sa qu'on appelle réinsertion sociale mhm. et c'est très important loolu mhm. parce que loolu rek lañ soxla ñun nit ki accidenté la nga réinsérer ko. xam ne li yàlla ko dogal mu kon ne dundam. parce que am na njaboot. parce que si je vous dis man am naa accidenté yoo xamante ni ñoom rek doon liggéey seen kër. ñu accidenté mënutuñu liggéey. ñooy suñu dafa leen carte d'invalide kër googu tas na. Mhm. ndeysaan. ay mbokkam dem nan ay doomam yi kenn gi man j'ai un j'ai quelqu'un de moi. Euh, Diallo ko maa ngi koy nuyu au passage il est de Thiès ba mu accidenté nee na euh, ba mu accidenté il avait 41 ans. Mm-hmm. nee na lu ko gën a mes accident am les enfants qu'il a eu avant son accident xale yëpp normal. Mm-hmm. macha allah ñu ngi ñi jàng nañ dem nañ seen master affaire yooyu mais les deux enfants qu'il a eu après son accident. Mm-hmm. nee xale yooyu mooy xale yu xaw a yembadi. parce que il n'a pas eu le. dédication euh, bu mu leen war a jox. toppatoo leen war a toppatoo yooyu. leen war a jàppale moo tax sunu association danga ko yàgg a xeex. Mhm. mais dañu dooleel. très bien wax nga ko tontu nee nga bi ñu la waxee main droite la. Euh, moo la ne kon yow sa affaire baax na tekki nga. Mhm. Mhm. waa ci naka est-ce que kon main gauche main droite dafa am différence. non non non xam nga non que bu fekkee dañuy calculer en IPP mooy. incapacité pendant partielle. caisse de sécurité da lay fay. da lay fay benn salaire par trois mois. am yeneen di fay par weer. mais loolu ça dépend si médecin bu defee rapport am. bu defee rapport ba pare yow léegi caisse de sécurité sociale mun la jël en charge bu la jëlee en charge bu fekkee sa mais gauche wala sa main droite wala sa tànk wala lenga nangam moom day xool mais gauche bokkul ak main droite mhm. surtout nga nekkoon main droitier par exemple mhm. mais boo déggee moom moo wax ma loolu sa médecin bi mhm. après dama demandé sama grand frère fa liggéey mi mën na ko médecin psychologue la noonu la mënoon def psychologiquement pour te indi la indi la merci léegi nag moo tax psychologie boobu nag moo nu manqué ba léegi. psychologie kon yéen maanaam soo leen amee accident de travail tey amul benn. suivi boo xamante ni psychologique amul mais est-ce que du parce que Sénégal fii tamit dañuy naan ku dem ci psychologue dof nga. tamit maman euh, c'est notre société. qui est ainsi faite aussi mais xam nga aussi ku def accident de travail nga def choc. da nga def choc psychologique. Mhm. te accident de travail médecin dañ ni choc psychologique boo ko defee lenn moo gën ci yow mooy suivi ak ak euh, ak kii euh, dañ la war a suivre. bu la suivre ak assistance. loolu rek la ma def si yow. ñu topp waaw exemple comme moom tey accident du travail bi def ci ay baaraamam. Mhm. xam nga li ma la wax. Mhm. dèjà xaw ma nu ñu koy waxatee lay xelal ak yooyu. Mhm. ça veut que par force la parce que du ko feebar rek parce que ku daan jàkkaarloog ay baaraam di ko xool di ci joué. ngay tourné di ko xool doo gis loolu rek dèjà xel mu wàññeeku la. parce que mémoire bi yaa koy xool. am na lu gën a même dafay wàññeeku am naa kenn koo xamante ne sama association ñaari loxo yi ñoo dem. fii la dagg. waaw kooku dama xalaat ana ay doomam amoon ay doom yu nekk si kër gi léegi doomam nan la ñuy comporté woo vis-à-vis ak moom moo tax dafa nekk loo xamante ni ñun dañ ko néewal doole askan dañ ko néewal doole te ñun nag dañ doon liggéey nag. Mhm. demoonu pour yalwaan wala lenn. man mhm. j'ai vu ça vu de mon cas man sama association am na ñoo xamante ne léegi ñu ngi yalwaan. mais yalwaan boobu lu koy indi parce que dañ leen war a topp ba ngeen wér est-ce que loolu. ñu ngi dañ leen topp ba leen wér ñu war leen jël pour ñu liggéey jëluñu leen société bi dàq leen si biti. ba pare bu ñu demee caisse de. sécurité sociale dañuy am problème parce que formalité yeeg papier yi war a. mais mais merci beaucoup parce que formalité yi papier yi sax déjà pour topp topp problème la. récemment dal na suñu benn compatriote actuellement sax dem na Maroc mooy Abdoulaye Gueye moom mi ngi woon RFM génn na jëm ba RFM di jooy. génne nañ ko média bi génne nañ ko partout. muy jooy parce que AIBD la liggéey def accident une semaine de son mariage. Mm. ndeysaan dox bi tànk bi dafa boxamu dafa jaxasoo complètement euh, fu mu doon liggéeyee ñu naxanteeg moom dafa ko départ négocier fekk six xaw ma cinq millions. mu jël kese mu jël ay bagages te tànkam mi ngi la amoon. CDI. Euh, non mu dem si si non. xam nga ne dañ lay ñëw woo la nax la da nga gis benn waaye bu kii sol moom xam nga toog waxtaan ak yow mais parce que benn objectif la am rek jot na ay instructions au niveau de sa direction da nga ko génne usine bi. très bien mu ñëw wax la ay waxam nga génn comme comme kooku pour vous dire que ce gosse actuellement. Mhm. man maa ko doon assister psychologiquement pour di dire que ñu bare si ñoom dañuy xaar sax dem xaru. Mhm. bare na si ñoom. asma da nga cee gis ku génn àdduna sax procédure bi day jël ñaari at pour ñu mën a régler dossier wam te loolu yëpp war nañ xool naka la ñuy def pour accélérer accélérer produit. justement on allait en venir vu moom dafa yor association bu leen di xeexal seen àq ak yelleef yaakaar naa ni am na lu ko fi tax a toog ginnaaw bu ñu relater tous les faits problématiques yi fu ñuy jugee euh, li nga xamante ni moom la euh, euh, travailleur accidenté yi di dund tey jii nii lan ngeen di xaar ci nguur gi nguur gi ngeen di adressé wu wala tamit da ngeen bëgg aussi askan gi gën leen mën a may doole ci wàllu googu. ñaar. Hmm. ñu gi suñu association ñu ngi xaar teg si encore euh, euh, duñu rek dañuy xaar si nguur gi mais ñiy liggéey te accidenté wuñ dafa yoon tamit ñu xamal leen très bien dafa yoon tamit ñoo xamante ni accidenté nan te bari nan asma am na ñoo xam ne ñu ngi seen dossier seen dossier mi ngi caisse de sécurité sociale gis nga ba léegi fay ñu leen am na kenn koo xamante ni euh, Abdoulaye Mbaye dafa lakk xale bu ndaw lakk am 40 pour cent mais nga war ko fay fay ñu ko ba léegi te moo wax la benn affaire. Mhm. salaire dérisoire ngay am. koo xamante ne ñetti baaraam yi ñoo dagg. Mhm. koo xamante ne loo xam ne mi fay ko 37000 par 3 mois par ñetti weer mois mais non xam nga bu serez étonné. quand di vous dis quand j'ai dit 37 Amsa m'a dit 37 par 3 mois bon donc c'est vrai mais xëy na kam kam moo koy xam koo xamante ni yaa ngi dund ak un accident de travail. mais yow boo ko dundul doo ko xam. Mhm. moo tax ñun suñu association. dañu jóg jóg période bu ñu toll nii. Mhm. di dénoncer ko di dem si télé yi di dem lépp ñu mel ni yéen di leen gërëm di leen sant ngeen ni jàppale si suñu communication. Mhm. parce que yéen la ñu mën a dimbali si communication bi. Mhm. parce que ku mel ni yéen boo leen lu kenn duñu jàppale. yéen am yaqin rek ni ñii ay nit lañ. comme li nga wax nan toog ak ñoom wax ak ñoom pour ñu mën porter seen combat pour que le gos qui vient de faire son accident aujourd'hui qu'on s'occupe de lui la caisse a maintenant quelques mois. Euh, lu amatu sax parce que caisse sociale léegi dañoo jot ay carte waaw ay carte de biométrique ay carte de paiement. lan jox pour pour ñu nekk Dakar pour l' instant dañ koy jox ñëpp. pour rang bi bañ a bëri. no pas pour buñ ñu gisati pour buñ demati caisse sociale mais c'est grave est ce que xam nga boo boo defee boo demee caisse sociale benn médecin moo fa nekk. ah bon. oui et on est presque un million. est-ce que du luñ li nga xamante ni ñu bëri dañoo ñàkk xam wàllu googu leen ni ñu koy toppatoo moo tax sax nag euh, naxsaay bi xaw cee bëri nii. mais dafa mm-hmm. bare ñu bare ñoo xamante ni tey ñu bare accidenté nañ toog seen kër man am naa benn euh, kenn koo xamante ni mi ngi si sama mi ngi sama association dafa def accident. Euh, mais ba léegi fayeekuwul parce que dafa dem di fayeku kooku ni ko yow danga nga déclaré ñaari ja benn jabar nga yow. te ñaari jabar te ñaari jabar parce que euh, ba nu defee euh, kii bi. Euh, enquête bi trajet be trajet beneen deuxième femme bi la. fay ñu ko ba léegi te mi ngi dund ak séquelles mi muy metti te lu gën a garaaw nag accidenté mu nekk amputé wala lenn il souffre toute sa vie. moo tax tubaab def IPP incapacité permanent partielle ce sera pour tout sa vie. il est payé pour toute sa donc ñun lu ñu mën a lu ñu wax rek mooy d' abord. Mm-hmm. c'est vrai que gouvernement bi moo nu mën a jàppale. très bien. Euh, je dirais que jàppale li gars yi di wax naan non euh, maa ngi dégg amel naan mais pour nga naan gouvernement dafa war a jàppale war ñoo jàppale. sasam la de ab sasam la. la waaw sasam la daf ñu war a daf war a dafa war a taxaw pour que suñu code de sécurité sociale. Mhm. est-ce que xam nga depuis 1976 le 31 juillet 1976 dañu gëj a wax affaire accident de travail à l'Assemblée nationale. Mhm. à l'heure où les scandales euh, des ouais. faux mariages et des passeports diplomatiques mm -hmm. plombent l'image du Sénégal. alors que gën a am importance 1976 lañ ko gëj a wax assemblée nationale. très bien. Ah, euh, donc loolu gouvernement bi rek moo ñu si mën dimbali. Mhm. ak suñu ministre mais est-ce que seen groupement bi tey yéen a ngi jóg seen groupement bi mhm. euh, d'accord euh, média bi baax na mais ngeen xool tey yoon yu ngeen di jaar parce que association yëpp dañuy dem seeti tey ku mel ni servir le Sénégal mhm. gis Mayram Faye Sall laaj ko wala ngeen dem laaj tey euh, ministre bi nangam seen àq ak seen yelef parce que bu ngeen ko waxee ci média bi tey asma jaar ci oustaz soxna si jàpp ci après ñu pare ci est-ce que dina commencer par man ñu bare suñu association ñu commencer par man je dis commencer par man mhm. bind nañ ñi ko war a jàll ñoo ko du jàllale. c'est l'occasion sax. mooy profito euh, pour wax Marème ana ana tënk Marème. karam Marème la première dame. muy man ak ñeneen bàyyi ñu xel yeneen na nu des demandes pour nga jàppale ñu parce que am nañu yaakaar si moom. très parce que nekk na femme boo xamante ni c'est une femme de valeur xam nga généralement euh, ñun accident yi dañ koy wax. Mhm. jigéen ñi ñoo gën a yërëm ko góor ñi. jigéen ñi ñoo gën a am benn yërmande bu baree bare si ko góor ñi. très bien man je me par exemple à mon euh, su ma jëlee sama exemple moom euh, euh, ba ma nekkee Grand Moulin sunu sunu DRH ba mu nekkee jigéen dafa amoon yërmande si man si je si je di en ba nu doon def premier mai suñu defoon premier mai ni ak sunu sunu DRH bi man moo may daggal. très en tout cas mi ngi noonu nekk na. Euh, loo xamante ne dañuy am benn yërëm. par rapport moo tax ñuy wax suñu première dame mu bàyyi ñu xel ñu suñu association. dina leen bàyyi xel bu baax a baax. mais man li li nga xamante ni moo ëpp solo ba ëpp solo au delà Mariam Faye parce que mm-hmm. demain le le le Sénégal embrassera une autre première dame. Mm-hmm. pour le moment moo fi nekk na gëstu te bàyyi xel. ñi nga xamante ni seen sas la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax càmbaraat mbir mi wax nga ni tantôt seen ministre de tutelle. Mm-hmm. kooku moom la ñuy interpellé ci gu njëkk. ndax moom moo ko Samba Si. si. Samba Si. Voilà, justement, monsieur le ministre. on vous interpelle par rapport à ces accidentés de travail-là. Mm. Ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax mais da dafay yee kenn ku ci nekk ku nekk en entreprise. C'est justement la morale de la chose. Yaay booy li jombul kenn. Mm-hmm. te nag ku ci ku mu ne yàlla rek mën nga see jaar. kon balaa caa ñun ñëpp nañu booloo dugg ci association bi donte accidenté guñu bu ko defee ñu mën a euh, préserver nos arrières justement